Telefon audio visual. Telefon audio visual.

الكريم خير سددي أنت سيد بالقرآن من ددي هجا بما يديم خير سددي أنت سيد بالقرآن من ددي هجا بما يديم خير سددي فاز سيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير سددي Thank you. waaw ñu ngi ne ñu ngi ñaan ci barke seen Tuubaa la fi yi barke seen saa yi nga xam ne moom la ñu lépp lu ñu ñaan yàlla sax moom def ay xew yu baax hadi ya Msiri Salim te ñi fi nekk ñu daje ci ngërëm si Tuubaa Sëriñ Salim ñuy del di santaat dong yëpp ci barke Sëriñ Tuubaa kon day mel ne dañuy ñëw seen xarit seen xarit boobu ñuy ñëw ndax moom moo ne day santaat bu ko defee moom daal ne kàddu yi mu daal su paree seen xarit boobu daal di def waxtaan bi bu ko defee joxe nit ñi incha allah mu mel ne li mu jëmee bari na lool ñu koy kuréel ñaari alxuraan bi nekk Touba ak bi nekk kenn ku nekk woote na fi ba joxe lim nga xam ne moom na jàng ci mu mel ne tamit fee ci Sawiya donc fa nekk ñu ànd ak ñoom liggéey si tubaab na ci ay lim yu xas allah rabbi des na leen ko jotal leen bu soobee waaye mel ne tamit. am leneen digal loo xamante ni ñëwaat na fi tamit muy dongo yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal liggéeyam Sëriñ Tuubaa bi te féete fee ca tool xel xom ya di jàng alxuraan ak di ko jàngale mu mel ne bi dañ leen warul warul woon lu mel ne café ak warga ak suukar loolee tamit ñu jot ci ndigal loo xamante ni bi ñu jokkoo ak sëriñ bi lu ci waay mën a jàpp rek bi ñu xalaatee ñu daan ne bépp soppe boo xam ne soppe Serigne Saliou nga rek bu dee mën ngaa bindu ci kay bi at mi lépp vingt lay doon bu ko defee bu ko dajalee weeru safar bu nekk si bi daan def warga ak café ak suukar di ko jox doome yi ñuy jàng alxuraan ak xasida ngir wàccaay ko wàccaayu màggalu Serigne Touba kooku mu na ni loolee ñun ci leen fas yéenee liggéeyal Serigne Saliou bi daan ne bépp donga boo xamante ni yàlla mën noo la ko te nga mën a bindu ci kay nga jox seen numéro téléphone mois de septembre fu mu jotee ñu dajale ko nu mu toll incha allah rabi ñu fexe ba teg ko ci loxol Serigne Saliou bi nga xam moom bi Serigne Saliou ci donga yi fu waaye mënta suukar ak borom bu mu war a yóbbu ca tool yi xel xom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 leen ndokkeel ci bisu xasida yi di ñaan suñu borom mu boole ñu ci jullit yi sëñ Tuubaa doon ñaanal balaa wasal yàlla dabi wasal ak yu baax la ñu muslim di ñaan lépp loo xam ne ay daan gàllankoor ci ay alxuraan ak ci xasida yàlla na ko suñu borom ful def ko ay junni junni sotti ko ci sëñ Saliou Mbacké yokk ay xéwal ak i daaram ak rasulillah mu mel ne li dama yi faral di wax si doom rek ne ko kon de xam naa yàgg maa tukki waaye li may dem ci dëkk xam naa jëndaa tuuti fan la juróom dëkk waaye parce que bu ma gis fii de yaakaar naa ne gisuma ko feneen may wax ne yéen waa Panor di jàll ay royukaay ngeen te li nga xam ne moom ngeen dëgmal di ak daal bi moom rek a am solo ndax Sëriñ Tuubaa mas naa fekk su mag ñi kenn kuy jàng jàng ma sëñ Tuubaa romb ko ne ko ana kooku man ma ne ko man la moo tànn faal sëñ Tuubaa ne ko ma daal di ñëw daal di dugg ci biir ñëw fekk ko fi ñu toogoon di jàng daal di ko mu ne ko sama borom nee na loo ñaan ma mayal ko mu ne may wax sëñ Tuubaa njëkkante moom ne ko ne ko ab taali bi ne ko ab taali bi kon ab taali bi rek am solo waaye bisu xasida yi nga xam ne moom lañ jagleel sëñ Saaliw maanaam sëñ Tuubaa ne xasida bii de def na ci lépp lépp lu ci biir lu waay duur rek boo jàppee ba seetlu toog nga am xasida soo ko seetlee rek lépp loo ci wut da nga ko xam ne ko bëgg ndax suñu tubaab dafa wax ni isa katabtu aw xaraxtu xaada li yam ba jeexu fadlahu fal xaada saa su ma bindee xasida wala ma jàng ko yàlla suñu borom day fam day gëneel di ma koy jaral di ma koy jaral di ma koy jaral waaye ngëneel yooyu mu may jaral dama koy wëndatu dénk ko xasida ba képp koo xam ne jàng nga am na ngëneel yooyu kon xam ne nag daanaka xasida am na solo lool. daanaka waxaat ne yoo si waxaat yan muridu tarbiya ilaa jinaani wa tarxiya nee na xasida de di ko tarxiya ba àggale ko fa yàlla tabal ko àggale kon nu góorgóorluwaat bu baax ci xasida waxaat ne tuwasilu aqlaami ilallahi xaabidan bilaa xalwatin wallaahu abqaa kama axla nee na sama xasida yi ne day jàpp ci di ko wom na ba àggale ko fa yàlla te du jar muy dugg wa bi kitaabati rabbi rabbi kullahu taarihum li wajhi rabbi yow sama borom na nga ma yaram ki nga xam ne day jàng sama xasida yi te yàlla tax ba xamal ko borom kon ñu gis ne xasida jàngi xasida dana yar doomu aadama waaye dana xamal nit kan mooy boromam subhanahu wa taala nga gis ne ma soog man de sëñ bi li ma jaaxal mooy tubaab yi dañu amee doole képp ku ñu mosaan yóbbu de faagaagal nan la te yow gis na la nga jógee ci tubaab yi ba ñëw te xoosu sax di ko Sëriñ Tuubaa daal di yëkkati de a ñaw daa jaa si junub matu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne man de li nga xam ne moom la ma suñu borom defal ci xasida yi nga xam ne bu ma neexoon sama loxo benn loxo bi rek su ma ko xàccee téeméeri noonu dana daam waaye sama loxo bu tedd bi de tëddewu ma ko lenn lu dul tàgg rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam يغني عن السيوف والرماح نعم الصيام نعم القاسماء kon xam nga ne xasida si tubaay si tubaay def na ci lépp kon nu bokk daal di góorgóorluwaat rek di gën a jàpp xasida yi dañ koo sellal te xam ne lépp ñu ci yow xasida yi nga xam ne mooy jaale ba ma raxe nga xam ne moom daanaka tuuma bu nekk teg na ko ci ñu naan day dox loo ñu naan ku koy ñaan day tàggoo sa sogo loolu lépp dara amu ci waaw ndax sëñ Tuubaa wax ne waaw bi ma yàq na ko maa yàq bitu bii si waaw yaa jëm na ñoom si tuub sëñ bi suñu borom na nga ma defal kii jàng sama xasida gi di jaale ba ma raxe nag ma ko mayal loo xam ne ki ko dul jàng da ko koy mayee ba faw kon na nga xam ne jàng du raaxi moom jàng gi ñàkk koo sellal mooy looy waaye ku koy sellal lépp loo ci bëgg na ko am muy yëfi àdduna ak ñu alaaxira ñoom ñoo ngi leen di déglu kàddu yu baax nga xam ne suñu Abdou dafa xaw a bett moo tax wàññeeku ko bu baax waaye kon dana gën a xew wasalaamaaleykum do Senado. Kébé ak Baye Mbacke Fall ak ak tout temps yi nga xam ñoo doon liggéey si tubaab bi la wax dëgg yàlla lii ñu def nii suñ ci mënee dara wala ñu ci nam na bi dara ci ñoom na ko gisee ndax te moom dikkoon fekkuñu fi lii kon duñ am xelum naan dañuy taxawal benn bis di ko gisee seen si àll kon ñoom ñooñu ñu ngi leen di sant leen ñaanal ci bàjj si Tuubaa yaa ngi leen si Tuubaa dëgëral te defal leen gudd fan daanaka bu yor ba yéene yi am ci liggéeyam Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa kàttan na leen ñu def ko nag ngeen soobee ci wàllu seen waxtu yi ñuy sant tànk yi bu baax a baax nag tàmbalee ko ci ñi doon jàng xasida yi ak ci kuréel bi nga xamante ni ñoom ñoo doon jàng lépp yi ak ña nekkoon ca wàññi doon séddale kafe yi ñoo ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa lépp luy si jàllu fayal yàlla ko bokk ak yéen ñëpp ci barke seen waxtu yi. mu mel ne kon ni ko waxee woon rek kuréelu Dialibatoul Marakhib bi nekk Touba indi nañ fi li mu xasida Dialibatoul Marakhib bu takkoo takku indi fi li mu wakaana xaqan adab li ma yasoo mu mel ne kuréelu Dialibatoul Marakhib bi nekk Ndiobène Bakel biñ leen ko waxee ñoom it daanaka loolee de defuñu ko kenn mel na ni ñoom lañ ko defal ndax ñun ak ñoom ñoo bokk bis bi ñoom it def nañ ko seen képp xayma ci liñ yooyee takku na lool. mu mel ne tamit fii ci Espagne gi dëkk bee ñu jóge woon muy mu mel ne ba leen ko waxee ba léegi ñoom dañoo mel ne laabu loolu moom ba ñoom def nañ ci ay dimbali xasida yu bëree bëri ñu doon jaal ba Tuubaa ak ba Gànnaar Kanam ak bi ma la suba boobu ñu xool fii ci Tuubaa Palma ji rek léegi nii rek wax dëgg yàlla bi ñuy xool jotaay bi li muy néew néew néew jàng nañ fi deux cent quatre-vingt-dix jàngatu maraay ci diggante boobu rek diggante bi ñu fi lañ kon loolee yéene ak pës ak pas man na six mille te jotaay bi wax dëgg yàlla koo xool ci diggante six heures léegi xam yéene moo tax loolee léegi baax rabbi maa yasuur bi kenn xamul lu mu toll waaye fas nañ yéene totaale ko alxames ak jàmm bu soobee yàlla doom yi soo nam na bi dañ leen wax ne nangam la ndax daa tase tey ñu koy kii ñu ko doon totaale faram si xaalis daal leen ñu daal di ñëw ci liggéey bi mu mel ne tamit ñu doon def yàlla di leen ñu leen ndax di suñu jiw ñu bokkal ndey ak ñu si àll yi sëñ Saar bi moom sëñ Ibrahima moo def bisu xasida di ko cante Serigne Saliou ba mu fa demee ñoo waa si Daaru Xudoos bi ma woowee si àll bi muy ma maa ngi nii waaye si Moussa Saliou dana fi teew léegi sëñ Cheikh moom sëñ Saliou dana fi teew bi mu bi mu fa teewee cëpp di ko la ma woo daan ne ma yow de daa mel ne mbir mi sëñ Saliou da ci bëgg a dugal loxoom ndaxte wax naa leen ko ñoom ñaar yëpp waaye tamit de nee na boo ci mënee doon wakkaan àqal bi mooy li nga nee na doon ko ci moo waral ñu doxal ñu ñoo la ci wakkaan àqal bi waaye yàlla xam di ni jaari wat marage ba rek dan naa doon pour liggéey rek si misaal mu mel ne loolee tamit ban ca kiwee daay doon noonu mu néew bi nga xamante ni ñoo yor doo ngay xel xam ñu bokk ñoom liggéey si misaal bi kenn ku ne xamoon na ni ci jamonoy màggal gi am na ñu fi ko muy café Touba café bi nga ngay xel di jàng alxuraan ñu ñoom biñ leen wooyee wax leen ko sëñ Saliou sëñ Saliou ñëpp mi nga xam ni moo jiite mbooloo bi nga ko waxee moom it mu rafetlu ko ngi ko am na si jëwriñ ñu ñuy wax doon na ko ko wax ma ne waaw wax Aliou ko wax na ko kon mel na kon liggéey bi lu sëñ Saliou nangu la ci gis-gis baax li ba nag moom moo ko xam kon dañuy sàkkuwaat si suñu morom donga yi rawat nañu soppe siñ saalu yëpp bépp donga boo xamante ni mën di jaayante ci kayit yi akum yàlla vingoor lañ si sase donga bu nekk ngir ñu waajale ko café bi nga xamante ni ak suñ ko seen borne bi moo yëw ca donga yi taxel ko loolee ni fas nañ mois de septembre rabbi fu rek bu ko ma dajale bu ko defee ñuy dem Sénégal bu soobee yàlla bu ñu demee yóbbaale ko incha allah man fexe ba teg ko ci loxol si suñu si amul suñu kon ñoom ji danaan doog a yëpp fu ci waay ñoom nekk rek ñu ngi woo suñu suñu saalum yëpp rek kenn si ak jaayante ba dugg ci kay wee joxe ba bu nekkee ca weer woowee suñ la woowee rek nga xam ne liggéey wala mbay doy kon ñoo ngi tubaab ndongo yi ñëpp mu mel ne suñu moom lañ amoon na sa yéene moom lañ defoon tamit mu daan ne mooy waxtaan ci ak waxtaan ci xasida yi waaye daa mel ne tool yi muy liggéeyee daal ko yéewoo yu ba nii xam naa moo waral yéex a ñëw waaye daal mu gudd mu gaaw sant nañ ndongo yëpp ñaanal nañ ndongo ñoo ci barke Sëriñ Tuubaa xasida yi nit ñi jàng ci xasida mu néew bàyyi yàlla ko suñu borom ay xéwal yu baawaan jàppandal ko ci ndongo yi muy état woom bu neex lool ba ñu ndongo yëpp ñu dajee Tuubaa su ko defee ca bi suñu saal gën fay defaat ñu dajee def ko ca Mbàkke bu ko defee waa kuréel bi dem jàng xasida yi saa yu ñëw sëñ Alassane def conférence bi waa xidma ji ak sikar yi sikar sikar yi te noonu lañ ko yéenee barke sëñ Saliou yàlla na ko suñu borom defal ñu dee si Sénégal yooyu ko noonu yi kon ñoo ngi tuubal loolu yëpp kon dañuy jox bàyyi noo nga ñaay bu ko defee bu paree bàyyi mbàkkee kenn daal di yeewi noo ngay ñu daal di ñaanalante daal Mbàkke ñaanal dongo yi yaakaar naa li ci waroon a wax lépp suñu xam ko ak sëñ Aliou ci sonn bi nga xam ne saa suñu kër si tubaab bi loolu moo fi moo fi am sonn ci diine xanaa damay def bàyyi Mbàkke def ay ñaan teew dongo yi sant ci dongo yi ak bànneew fan ci jotal boo xam ne nii. salaamaaleykum mbokk waxtaan bi ñu ngi leen di nuyu ziar te di leen xamal ne jataay bi tey teew si nañ ci ngir cofeelu sëñ Saliou ak cofeelu mbokki taalibe bi sëñ ak mbokki bës daf ko yóbbante ñaar yoon ci man wax ma ko dellu soññaat ndaw mu wax ma ko. ne man daayira bi gëj naa ci ñëw sax yàgg na waaye lépp nag ci maanaam sant Sëriñ Tuubaa rek la daayira bi ci boppam sëriñ sëriñ bi ci nekkam daana ci seeni jëf yoo xam ne li daayira yi bari ci yomb ko bi yëpp ña mu nekkal wax nañ ne mosu koo seere ci benn daayira muy daayira salaam daanañ ko ba daayira lu ma téeméeri daayira ne ci moom mu téye ñu ñam yëpp nañ daayira Espagne boobu dañ ma ko téye taalib ñu jox ay benn Modou gi mi nga xam ne boobu Modou gi moom daana wax ne yéen ñi de li leen sëñ bi fonke ak li ngeen di waxtaane bëriwul ñu ngi koy waxtaane ci day ñu ngi leen tey itam tey leen defal leen benn ngeen yenn ci kër gi mu ne na leen leen def li benn mosuñu koo gis defal ko day ndax li ñuy ñëw ci day bari na waaye li mu leen def mosuñu koo gis te daanañ wax ne itam fu mu toog itam daana waxtaane day boobu ci wàllu Espagne bi ci baax Palma ñu ngi ko si teefu leen sëñ Mourtala moom toog naa ci boppam mu toogal boppam mu bi mu tawatee ci tawatam ma nga tëdd ci euh, noonu fekk nga mu tëdd euh, nekk ci néegam fat boo ñetti ni la mu ne mu ne ko day def Espagne parlement ko mu ne yéen xam ne nañu bu baax ñu parce que mu moo waxal boppam ci wàllu ñu mu ne yéen ñu parce que moo tax day def góor góor yéen yi xam ne yéen yéen da leen fee da ngeen ko fekkoon mu wëlbati ko joxaleen góor man naa ne parce ba ngeen am nag yéen tax yéen a mën moo tax daayira bi fi nekk ku nekk ngeen lu ngeen ci gën a góorgóorlu la kanam lay jëm ndax ñaanu sëñ Saliou ñaanu sëñ Moussa am lu leer naa ñu la moom boo xam ne man maa ko seet ñaareel ba moo tudd daayira bi tudde ko daayira Salaam ñu ngi ko tudde woon Boulanger loolu yëpp ci Pastef la ak góorgóorlu xale yi nga xam ne ñu ngi fi itam man ni ma gisee ñu koy doon ci daayira ak yoonu sëñ Tuubaa maanaam ñi ci gën a tuuti nga xam ne tey bu leen adduna jàppoon tey ñu ngi ci yeneen di doxe neneen moo ne dëtul fu jant bi soo bàyyi nañ i liggéey ñëw ci daayira mhm. ne li ma leen di ñaan ngir gën cee góor góorlu bu baax ku ne salaamaaleykum ci dëkk bi di gone nekk ci yoon seen Tuuba tax ci dugal ci biir ndax loolu mooy dundal yoon seen Tuuba loolu daal laa amoon lu ma leen ci wax ngeen gën cee góorgóorlu bu baax man nag dayu bi gëj naa cee teew ñu xam sax ñu mbàgg mu góob góobalu jo dayu góobalu a ni ma leer nan ko sotoon ba léegi moom foofu sama ba laa yow mi naa ko ma ne woon nag mënatum ko nag laa sax comme naa doon ma sa waaye xam naa ne yéen mën naa yéen a li ma naan lim ci daan dox nag ngeen ko dox baax a baax ñi leen sant bu baax te xam ne fii ne lépp loo xam ne lii fas nañ ko fii ci barabu sëñ Tuubaa bi bu ngeen ko bu ngeen ci àllee pasteur suñu borom da leen ko def ci lu wér loolu moom def jublul benn du ñaar kay yéen itte yi ngeen wax bu ngeen toogee fii rek kuréel ba pare fas ko ñaan boobu rek day daal di nekk te sëriñ Moustapha Massamba mas na maa wax ne lépp lu ngeen bëgg yéen taalibe seen biir na ngeen ko ñaanalante bu ngeen toogee ci kanamu sëriñ sax du ngeen ko ñaanal taalibe boobu ñu xam ne dikka ne mas naa ci këram di wax ne man de sëñ bi dañ may ndax wàcce sama borom yëpp mu ne mu ne ko li gën a gaaw sa mbooloo bi tari biir bi la ñaanalee doo wàcc nguur Ablaye Wade ba ci ma dikka toogee ba ni mu wàcc mus ko wàcc day gën a jëm kaw te ci kanamam mu ne ko na la ko sa mbokki tari bi ñaanalee bu ñu ko ñaanalee kanam nga jëm man joru bi ma lay ñaan bay ko ñaanal te loolu lu seet lu teg suñu bëri kon nag ab taalibam mu gën a wér ci taalibi positif positif nag dafa jafe ci taalibi maanaam di xool sa kanam te bañ a xool sa gannaaw sa tànk yi ko teg ko teg mukk fekke la nga nek buat wote te fasiyene ni ci djub baye di ni ci digal seigne touba ni baye tere ko ci def dal do kanam ngay djum ay tole lu ah ko seigne ni ki Yeah. 19 ne doon.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 la la